a nga xam ne jël na saan def nañ laay fan tey nag ñu bisaat ne rek def turbaay bu ndaw a ndaw dugg na partage dugg na partage kudu dapat rasa kudu dapat rasa kudu dapat rasa kudu rasa démb nag lañ defoon émission Ndogolo ba faw tey nag macha allah dimanche dañuy ñëw rek def retrouvaille ñëw rek def ba faw xam a nag dem tey moom mooy xam na nag seen émission Ndogolo ba faw tous nag. lañ ko def ci samedi bi allah dara ñaawul lépp nice tey nag nekk dimanche ma ñëw biisaat ko def retrouvaille émission Ndongo Lo Go Fall dégg nga loolu mu gewal bu dee jooy dee ko naxee galam bi bimbin yaay bimbin yaay sabala far waaw tey rek ndeysaan macha allah maa ngi online bi wax bi ndeysaan tey benn nit laa xaar benn nit benn personne laa xaar bu ñu gisee ñu jàkkaarloo waxtaan def retrouvaille émission Ndongo Lo Show tey dañuy def retrouvaille retrouvaille l'émission la ñu tey partagé kay partagé partagé partagé yaay tey benn lay xaar bu ñëwee ñu ñu waxtaan après ñu tëj te duñ ko dël quoi vraiment waaw ba tey maa ngi bëggee gars yi bu baax a baax di wax ne tey benn personne la xaar benn nit waaw ku njëkk ñëw rek woote si online rek ma jël la ñu jàkkaarloo waxtaan tey moom duñ mën a guddal waa grand Modou Coumba Ndour maa lay ziar bu baax a baax di la bëggee sa xarit sa rakk waaw sa soppe bëgg ndongo l'international maa lay bëggee bu baax a baax da wax jaajëf di ne tey nag moom macha allah benn personne kese la ñuy xaar su ñëwee rek ñu jàkkaarloo def live en direct après nag ñu tëj live bi parce que tey moom bu émission sax tey du émission émission bi démb la woon ci samedi bi muy émission Ndongo ba faw waaye tey nag. macha allah dama toog dimanche mat naa la ñu toog ni sama salon yi macha allah teg Ndongo Lo di bëgg ko partage ak yéen bëgg tamit ñëw diisaat émission bi indiwaat retrouvailles émission Ndongo Lo ba foofu. tey dama ñëw rek pour def bi xam nga lu neex loo gis ne am na retrouvailles après l' émission c' est les retrouvailles comme émission bi macha allah defoon nañ ko démb sant bi macha allah mu jàll ci jàmm ak salaam tey dañoo ñëw nag def le retrouvailles. téye gars yi bu baax a baax a baax ñu ñëw jëndi ay son Ndongo Lo 24 Christ. bëgg moom laay laay laay yaa bëgg moom sax Kumba Ndour maa ngi laa ziar waa dégg naa li nga wax nee nga Allé Ndongo il est le premier ndeysaan Ndongo Lo ndeysaan tey bu nee ba naan ay Pikine rek leneen leen tey moo tax de moo jëkk a loolu ba tey ndeysaan xale yeeg ñu mujjee ñëw ak mbëru làmb yeeg ñëpp ku ne di woote Pikine tey may ziar gars yi bu baax baax di wax tamit tey du émission du dara parce que ku ne xam na ni émission bi démb la woon vraiment démb lañu ñu émission bi ensemble tey nag dama toog waaw def retrouvailles ni tey dara xewul dara amul dara xewul tey dama toog rek def retrouvailles def retrouvailles retrouvailles retrouvailles retrouvailles def retrouvailles émission Ndongo Lo ba faw waxtaan suñu biir nii rek mais tey dara xewul bare tamit may sàkku di dagaan bu baax a baax a baax a baax benn auditeur rek su ñëwee oote ñu jël ko ñu jaakaarloo waxtaan ma laaj ko tamit démb nu mu gisee woon émission bi démb parce que émission bi macha allah démb neexoon trop émission Ndongo Lo ba faw démb neexoon trop tey nag moo ma ñëw toog sama sonal ni ma mu yàgg rek man na ma sama gars yi na ma leen téléspectateur bëgg Ndongo TV international ma ne naa def retrouvaille bu ndaw a ndawa a ndaw a ndaw pour bëggal fa gaa yi macha allah def décor bi nii ndeysaan ñax mi ci suuf am na solo trop parce que si jamonoy nawet lañu nekk waaw Elvin Diop waaw maa lay waaw kan laay seen nii kan laay seen nii am na kuy woote de am na kuy woote am na kuy woote waaw xaaral ma jël ko xaaral ma jël ko waaw xaaral ma naa la yaa ngi si biir ndeysaan maa ngi siyaar xam naa ndeysaan waaw accepté naa la waaw boo ñëwee ñu jël la ñu ngi koy wax Modou Modou Galsen waaw boo ñëwee ñu jël la yaa ngi ci biir di la bëgg bu baax a baax di wax tamit pour rappeler gars yi rek Aram Faye mu ngi bëgg ndongo l'international ziar naa la déwénati baal ma ak baal naa la ñu yàlla boole baal amin waaw Aram Fay xam nga lan laay sàkku nag wooteel ma jël la ñu ñu open press Aram Fay dugal ci live bi dugal ci live bi nga wootee wooteel ma jël la parce que dama lay soxla quoi invité la jo propose na sama ay question laaj la laaj la démb démb noo gisee émission bi Aram bu dee yaa dégg intégré wul vidéo nga ma ma jël la comprendre nga laaj tamit ba tey démb noo gisee émission bi démb waaw vraiment parce que loolu dama koy soxla trop ku ne xam ne ne émission Ndongo ba faw démb la amoon dimanche bi macha allah paas nañu ko si jàmm suñu invité yooyu jotoon jaar ñëpp woote amoon na solo trop trop trop trop vraiment ba tax na tey dimanche maa bi nii maa ngi tëdd nii def relax comprendre nga maa ngi tëdd nii def relax macha allah tëdd nii ca kaw def relax comprendre nga tamit bokkandoo tamit ak téléspectateurs yi moo tax ma ñëw tamit def retrouvaille pour tamit les téléspectateurs tamit mën a oote rek duñ ootee ko oote ma jël la par appel vidéo ñu jaakaarloo nag def open presse wax ak askan wi wax ak àdduna maa ngi xaarandi gars yi rek fekk fekk 3 minutes maa ngi xaar gars yi ku ñëw rek ma jël ko tey nag moom dafa nekkoon dimanche nekk spécial retrouvaille seen émission Ndongo ba faw seen émission Ndongo Lo ba faw démb la amoon mais tey damaa ñëw def retrouvaille bi nii kon dañuy déglu rek li Ndongo Lo way bàyyi laay nga xam ne ndeysaan yéeme na way boobu pour ndaanaan way sax day xaw a jafe bàyyi laay bi nga xam ne ay lu ne nañu ànd déglu Ndongo may xaar gars moom kenn laa soxla kenn kenn laa soxla rek ku woote ma tëj émission bi moom benn auditeur laa soxla bu woote ma tëj émission benn auditeur laa soxla ma woo en ligne ma jël ko ñu jàkkaarloo def open press bu dugg ci biir live bi ñu jàkkaarloo may xaar di yi rek sans départ bu nekkee si grand yi wala ci fans yi comme su ma la doon baax na ku ma woo rek intégré wu ci vidéo bi rek dinaa la jël Aram Faye maa lay xaaral rek waaw nga dugg woote wax gars yi comme noonu la partagé rek ndeysaan gis naa Aram Faye mi ngi koy partagé mais machallah aram fay mi ngi def lu am solo ma ngi gis mi ngi partager gaay ñi ngi dugg machallah mais tay mom damay xaarandi gaay fi ak 2 minutes rek ben ki la soxla ben auditeur la soxla bu dugg ci live bi rek ñu jàkkaarloo nak ma wañi musique bu ñu waxtaan kon ba ci kanam rek waaw ben auditeur la soxla kon ma ngay xaarandi ci léegi machallah musique bi dafa doy waar pare riis parce que dégg nga ndeysaan noonu da ci way malax en même temps da ci def salsa dégg nga lam ci woy salsa nee nañ ànd rek Thank you. salsa dégg loolu laay laay eh, wi mais gars di bëggee di waxtu bi dama bëgg ngeen bu baax a baax fii ku raw rek am nga problème fii dafa yéeme déglu leen fi les soy wilaaye asan dëgg astafurlah Ousseyn ñëw kii kii kii kii kii kii kii après ndongo ñëw Babacar Laay mooy buuru laa fi waaw waaye Moodu Mbaay yaay guuru laa fi Alaaji Umar Muse Mbaay sa baay déglu leen nii waaw mu ne ko baale ko woo rek ma jël ko baale ko woo rek ma jël ko continué naa soxla

xam ngeen ni kii xam ngeen ni kii macha allah fa mu jëm yàlla gën a fa mu jóge kii du moromu benn artiste dégal ma lii rek del ndongo dellu fa ngor waka bayoon uti Laay Maxtaar waa gars yi gars yi gars yi ba tey li ma waxoon rek maa ngi xaarandi gars yi na gars yi dugg woote na gars yi dugg woote benn personne laa soxla bu woote rek benn personne benn personne laa soxla bu woote benn personne laa soxla bu woote benn personne rek benn personne laa soxla bu woote benn personne rek benn nit bu wootee rek ñu jàkkaarloo open press teg bi bu fekkee yéen a dégg kenn laa soxla kenn ku woote rek benn personne laa soxla bu woote benn personne rek ba tamit lii di émission du dara retrouvaille la retrouvaille fans la parce que ku ne xam ne ne démb la émission noonu la ba faw émission mag boobu démb lañ lañ lañ lañ doon passé muy démb samedi bi tey nag dimaas la ma ñëw indil leen retrouvaille émission Ndongo ba faaw tey nag retrouvaille la rek waa dañuy dem na dugg Pikine après ñëw nañ dugg Pikine nañ dugg Pikine nañ dugg Pikine waaw xam naa dañu dugg Pikine après xaarandi gars yi dañu dugg Pikine xaarandi gars yi bu amee kenn ku wootee rek ma off musique bi ñu jàkkaarloo waxtaan après nañu tëj affaire yi parce que affaire yi à l'instant nii waaw fii laa koy ñu tëj ko mais avant ma damay dugg Pikine yi ñu ñëw suñu ñëwee rek kenn wootee appel vidéo rek ma jël ko ñu tëj affaire yi tey retrouvailles la ay émission spéciale retrouvailles seen émission Ndongo Lo ba faw bi amoon démb la nay ndeysaan defoon nañ émission Ndongo ba faw tey nag nekk dimanche ñëw biisaat ko def retrouvailles ba demee wax gars yi ko dugg rek na partagé partagé partagé partagé partagé partagé ba ca biir pare ba ñu def retrouvailles dugg Pikine après ñëwaat ñu dem gaa yi joowe woo naa la doom yaayu jaga joob Suleymaan Balde doo ñaawe Balla Bey di bëre di bëre di bëre ba daan maa daan wayi Jaga Jóob bu Paap Jóob Jaga Jóob di bëre di bëre di bëre ba daan Balla Bey oo waaw waaw doo ñëwee ku sa xol neex yóbbu ci kaw Papa Jóob alaaji ma jamaay sabaay Ibrahima Diop bokk ndey sëñ Mame Sor ba kër ya ak dara maanaam loo ko gars yi bu ngeen ñëw ma jëlee koy defee ndaw bu ndaw Thank you. jaaday sa yaay demba ko mag demba góor demba prima jigéen way leen ama seen ku la sagal way ko Souleymane Baldé ku ci ñoo dellu ginnaaw ñun waa Pikinooy ku la fayda fii leen ko fekk si tura yi fii leen ko fekk ku laajal allo maa nga laaj Moustapha Gueye si jóge di nga daan ku weddi laajal

affaire nag fii laa parce que booba léegi maa ngi xaarandi gars yi gars xam naa fii dem xool benn son rek tëjee ko yemale ko fii comme xaarandi naa gars yi gars yi ñëwuñu amoon naa yéene nag amoon naa yéene xaarandi gars yi wala léegi gars ma mayaa leen mayaa leen deux minutes rek waaw xaaral ñu dem sànni leer na la yàlla boole mënuloo ko bàyyi local ah. dara ci wéet yi gën na ko la yàlla boole moom it du la bàyyi waawaaw yow jax saala way leen ah. ay tax coow li bari ku ya di laaj ma maa bëgg galas yéen a bëgg galas maa bëgg galas ku bëgg galas ay loxo ca kaw ni loxo ca kaw ni loxo ca kaw laaw laaw laaw laaw laaw ku ko neex yu ko ci kaw eh ku bëgg seen fallu oh ma boy ndax ku yàgg dara dëgg la coow li yàgg naa bëri waaye yaakaar naa ki jëf ba raw lu baree baree bëri coow coow mu tax nga dab ko ndongo eggalil woyaat ko Sëriñ Fallu Mbàkke ndaa li laaj ma waaye maa bëggee sëñ borom du maa ay sigil na ma Mbacké sagal na ma ay sigil na ma Mbacké sagal na ma ya xalu sigil na ma Mbacké sagal na ma laaw laaw laaw laaw laaw ku la defal lu baax soo ko waxul buy yëg say noon na la ci boole whatsapp wala non bu ma woo whatsapp de bu fekkee rek maa bëgg woo pour ma jël la ci live bi xam nga instant yaa ngi ci biir live bi mais soo xoolee noonu ci kii ci ci fonction yi fonction yi boo duggee ci biir fonction yi nga xool rek di nga gis fi ñu def demande vidéo aram fay fekkee yaa may dégg da ngay cliquer foofu nga demandé ma vidéo soo ma demandé vidéo après ma jël la parce que soxla naa trop nga sànni deux mots rek ma tëjee ko parce que instant yi nii maa ngi suñu cëppaandaw émission yi moom maa ngi suñu tëppaandoo émission mais bu fekkee da ngay ñëw ma xaar la une minute parce que isaan jaaxal naa parce que tey du woon émission du woon dara tey damaa tëdd nii sama salon rek macha di defar ataaya nii di retrouvaille nii après lay mani waaw naa def retrouvaille émission démb bi rek pour friser waat encore waat gars yi wax tamit beneen dimanche prochain bi ñëw nag ñu préparé parce que cette émission loolu faw dara du changé na léegi démb samedi la gars ko ma ñëw indil leen ko démb samedi bi def émission noonu faw xam naa maanaam tey lii nii genre retrouvaille la rek mais bu la neexee yow Arame Faye fekk yaa ngi ci biir live bi di ma seetaan li def mooy da nga si kaw si kaw si kaw nii ngay xool fonction yi si kaw fonction yi am na fa foo xam ne boo ko cliqué boo di nga demande vidéo après nga kii ma nga demandé ma vidéo wala xaar ma xool ba xam ne dinaa mën a jërëjëf xaar ma xool la su ma jërëjëf nga accepté ma xaar ma xool gardé nañ ma jërëjëf xaar gardé nañ ma jërëjëf ma demande ma dëgg dëgg xaaral tuuti ma dëgg dëgg xaaral fay xaaral ma dëgg dëgg xaaral ma dëgg waaw dèjà sax yow gis naa ne yaa yaa ngi ci biir laaj bi xaaral fay yaa ngi ci biir laaj bi mais yow mais yow demal foofu. ñu ne loolu fa nga fa nga dem demande vidéo bi pas WhatsApp de comme yaa ngi laaj bi demal demande vidéo bi ko gis da ngay lire fonction yi da ngay cliquer fonction nga leen di xool nga dem demande vidéo comprendre nga après di ko gis maa ngi lay xaar tuuti comprendre nga Anam Faye comme ni ngay seetaanee nii am na fu ñu def demande vidéo foofu ngay dem foofu nag pour nga dem fa nag da xool ci suuf comme ni nga duggee ci laaj bi da nga xool ci suuf nga cliquer fonction yi ñu def demande vidéo nga demande vidéo maa ngi xaar dégg maa ngi xaar deux minutes rek. bi daa mel ne Samba Mbaye la xam naa Arame Faye nag boo yeexee moom Samba Mbaye moo jëkk a dugg de Samba Mbaye ma tëjee ko benn parce que tey kenn laa soxla bu dugg rek ma tëjee waaw jaar na fi ma ko wax Samba Mbaye Mbaye tamit borom doomu nday toos sax ku njëkk a rek waxoon naa laa tëjee parce que tey moom du émission bi daal tey retrouvaille waa mi ngi sal mi sal moom tey jii bay faal mi ngi sal waaw ku njëkk ñëw rek fa laay jeexale ku njëkk ñëw fa laay jeexale tey nii bi daal tey retrouvaille rek parce que émission bi def naa ko depuis tey dama ñëw def retrouvaille rek retrouvaille l'émission Ndongo Lo bu Faraw c'est aujourd'hui sambil sambil sambil sa moom jaar na ci bu oh koy karena aku ci bu sa mbay xanaa kon am connexion bi xaaral ma jël diwaan rek xaaral ma jël diwaan ministère bi mais sam fi nga nekk noonu da nga xaw a déplacé tuuti boo déplacé yang ci WhatsApp mana Ziar? WhatsApp eh, ana kii ana wa fii ak fee. ña Mana sih kaw. Tapi mau ziar tey moom xam rek émission bi démb laa defoon démb. démb waay. waaw non démb def xam naa ci xel sax démb ngi wi. ba ci mbam ngi ak ci ji. barki yàlla démb laa ko doon xam rek tax bi ma waaw moo tax tay moom damaa ñëwoon ni rek après taal sama live nii rek pour def genre retrouvaille rek retrouvaille ni waaw mais retrouvaille benn instant. day baax waaw retrouvaille li waaw retrouvaille l'émission Ndongo Lo ba faw. barke Serigne waaw moo tax xam naa tey moom yow yaay tëj émission bi yaa koy tëj ci yow laay tëjee quoi. ëpp naa def ëpp naa def. non yaay tëj. tey dama ne tey bu kenn duggee bi rek après fa laay tàggatoo mu tëj parce que lii retrouvaille la quoi duñ mën a guddal noonu parce que du émission dara. a ah, da nga da bi rek gars yi gars yi bëggee. waaw yaa ma gën xam xam nga rek émission bi démb la woon quoi am na gars yi ci la jaar boo xoolee bi sax bëgg na woon TV international sax da ngay gis émission bi posé naa ko foofu démb la woon quoi démb. ah mais bëgg ndongo international waaw mais comme ci ma laaka tàmmal gars yi moo tey ma ñëw tijji affaire yi xam nga pour gars yi dugg def retrouvaille émission démb bi xam nga après tamit ñu baal te ah parce que yow ginnaaw laa trop. waaw man looloo tax ma looloo looloo gën a tax sax ma gën a dugg. kon bisimilah. lolo tax ma gën a dugg dama lay baalu àq di la di la baal àq di ñaan suñu borom jégal ñu suñuy yi ak yi ak yi nga yi ñëw ak yi ñëw ba dem. amin amin amin di la ñaanal ak yi ñu amin amin ak yi ñu jëm yàlla na ak ñu amin waay di la sant tamit di la de témoignage yeeg euh, émission bi nga xamante ne nii doore nga ko boobaak léegi léegi mat jàpp ay at ñu lay suivre ñu jàpp te bàyyiwul te xam naa ne yow boo bàyyiwul duñ bàyyi mu nekk nag affaire bu nice boo xam ne man de wax dëgg yàlla sama xol bi da ciy dama ci dama ci dama ciy bëgg wax dëgg yàlla bu day mel ni sama doom ji ndaw bi bu soo danaan ma ko waaw papa euh, sa émission bi ma ne ko ah kon bisimilah ko ndeysaan donc euh, jullit yi ñu ñaanal ñëpp suñu borom leen xéewal waa fii ak fee plus particulièrement ak suñu grand Djily Mbaye di la ñaan yooyu nga xamante ne nii suñu xëy bu xàttalal bi na suñu borom defal amin amin amin di la ñaanal nak ci ak dewen nga tak soxna ma nga takkaat soxna no maram mu fi mu fi xana takkaat kay takkaat benen suuf na muy ñaarel wa xewali jow rek takkaat takkaat takkaat une deuxième waaye cey bu la maram jambe maraba ngi nii mu ngi toog. yee man dama mere. waaw mu ngi mu ngi toog. googu ñaan mu ngi toog di ataaya. waaw naa lu baax rek nga may ñaanal. barki Serigne Bamba Mbacke ni ko xamee noonu rek. dëgg la dëgg la waaw dina comprendre. trop trop. xam naa ni sama gars yi waa feeg ñu ngi ci ligne bi xam naa ñoom léegi ñu dugg. waa feeg fee waaw mais tey tey si si si yow laay tëjee rek. ëpp naa dem mooy ci yow laay tëjee xam naa beneen dimanche bi di ñëwaat nag mooy émission bi xam nga émission bi def naa ko démb quoi démb laa ko passé démb laa ko def tey kii la quoi tey retrouvaille la rek. ah tey retrouvaille la waaw koy wax donc du xam naa di ñaanal ñëpp rek. di ñaanal ñëpp rek waaw gu mujj rek. kaddu gu mujj mooy ah waa cëm waa naanaan ma sama wàll. waa gis nga gis nga maram maram fii la jaar. waa cëm ki yàlla bu mu am wujj maa ko waxoon waxatuma ko. <laughs> ma maa ñaan ñaanatuma ko waaw mais kaddu gu mujj gi nag mooy bëgg ndongo mooy xam naa di ñaan suñu borom mu tàppe xol yi. ndeysaan amin amin